très chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di àndee saa ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série Kër Baye Mangoné épisode 49 ñu door ko ak Rose Rose nag euh, fexe rek ba daal di jàppalu ki nga xam ni moo di Papis ndax dafa lëkkaloo ak waa police euh, ba génnee ko loolu nag tax na Papis commencé nag moom it di dund euh, karmaam parce que yaakaar naa comme li ñuy wax jigéen ku ko toroxal yàlla toroxal ci kawam parce que gis nañ fi mu jaar ak loolu li loolu li bëgg ko muy am fu mu jaar ak moom trahir ko waaye yemu ca am ak am ci moom ay foto photo yooyu yàq àdduna lool li waaye mu ca mu nekk ak mati mati aussi bëgg ko mu jël mati moom noonu daal di koy fowee ba sax dóor ko ba ëmbam daal di tuuru muy loo xam ni kon tey ji lépp nag moom moo daal di këpp ci kawam kon nag moom mi nga xam ni moo di euh, papis euh, ya li ñu naan lu waay reen di sa loxoy lay naaj ci loolu moom la jot a dund tey ba tax na nag euh, mi ngi koy assumer bu a te it nag nekkatul loo xam ne sax da koy nëbb parce que tey euh, bi mu xelam dellu see ñëw na rek di wax ak loolu pour baalu ko waaye loolu moom dafa mer ba tey parce que jàpp na ni bàyyi warul woon gëm ñam papis di ko bàyyi parce moom da bu baax a baax te it nag da cee que victime kese la woon ñu jàll ci mati mati nag dafa kontaan bu baax a baax si le fait euh, papis ñu daal di koy jàpp police parce que moom mati jàpp na ni papis moo yàq adunaam ba tax na mu supprimer ay photo yoo xam ni bokk na ko ak moom pour nag gën a soulager wu pour nga xam ne day tourner la également ci digganteem ak nga xam ni moo di Papis lu ñu naan nag lu tëgg tas loolu la gis ci diggante Mati ak Papis parce que ku ne xam na ni bëggante woon nañ lool Mati bëggoon na ko ba mu jaraloon ko lu nekk waaye nag yaakaar naa parfois li ñu naan euh, entre euh, l'amour et la haine c'est juste un pas loolu nag moom moo am ci seen euh, diggante te lépp nag Papis moom moo ko yàq parce que yaakaar naa jigéen bu la bëggee mën na la bëgg aveuglément waaye nag am na foo xam ne boo fa àggee rek nit nit rek la dina fippu te jigéen bu fippu nak yaakaar naa ku nekk war na koo moytu parce que moom moo gën bon ñu jeexal ak njegaan njegaan aussi mi ngi dund karmaam parce que yaakaar naa ñu naan yéene néeg la borom moom moo cay fanaan te loolu moom moo ko euh, na ci kawam parce que bàyyi ma ngoone même bu fekkee itam njabootam tas na waaye mi ngi si jàmmam euh, mi ngi ci wér gu yaramam mi ngi ci en bon état te lépp loo xam ne ñàkkoon na ko peut-être mën na ko récupérer waaye moom njegaan tey ëllëgam kenn xamul parce que mi ngi ci ci néeg nekk ci feebar boo xam ne mënul génn néeg bi parce que yaakaar naa euh, foo toll rek am luy génn ci sa ginnaaw loolu am euh, di nga rus wala am nit ba mi ngi fay gis ombre Baye Mangoné euh, mu que loolu day wane ni boo ko defee lu bon aussi tôt ou tard sentiment de culpabilité faaw mu ñëw ci yow loolu nag tax na moom njegaan mënatul nelaw mënatul def dara ndax fu mu toll Baye Mangoné lay gis kon na di foofu la ñuy yem ci épisode 49 bu série Kër Baye Mangoné ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laataa boobu di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche de notification bi pour ngeen di jot vidéo yi à temps réel jërë ngeen